bu baaxee ñu daal di koy dooree ak li nga xamante ne ni moom moo di tribune tribune bi nga xamante ne nege ni tey daal dinay def ci xëtam bu njëkk li nga xamante ni moom moo di notification bi ñu décernel lenn ci ay maison de presse te service bu impôt et domaine ñoom ñoo daal di def lu ni mel jàppal ni presse bi nga xamante ni njiitu réew ma woon Macky Sall daal dina leen di dribbler jamono jile nag Bassirou Diomaye Diakhar Faye le président daal dina leen di menacer lu tolloo ko 40 milliards de francs CFA jamono joojee lañ leen indil ci li nga xamante ne moom moo di ab war a fay impôt ne CDEPS mu ngi ko doon am ak lenn ci ay patron waxtu boobee ñu seeti ji beneen xatu yéene mu nekk le quotidien le quotidien bu Madiambal Diagne daal dinay ñëw ak ñun ci eurobond boo xamante ne toll na ci quatre cent cinquante milliards de francs CFA fay d'une opération li ko waral jàppal ni taux d'intérêt woo xamante ne na ci sept 75 pour cent ñu waroon kaa fay ci diiru ko juróom-ñaari at ci atum 2021 Sénégal daal dinay leb leb goo xamante ni toll na ci 500 milliards taux ba boo ko dee xool toll na ci 5 virgule 3 pour cent ñu waroon kaa fay ci fukki at ak juróom benn benn parti googee nga xamante ni nag leboon nañ ko lebaat nañu ngir daal di fay beneenug det leb ga ñu leb daal nay toll ci 450 milliards dugalaat ko ca bor ba waxtu boobee ba tey ci le quotidien ñu daal di fay fekk mission bu fonds monétaire international di FMI jamono joojee nag lenn ci ay ay subvention la ne na ko état du Sénégal tegge ba mu daal di set wecce Sénélec Petrosen jamono ji daal dina ñuy am ay directeur yu yees marine nationale bi ba tey ci le quotidien marine nationale bi jamono joojee nag daal dina am li nga xamante ne ni moom moo di beneenug bateau gu mag goo xamante ne ñu ngi ko tuddee la Kayoor jamono ji commencé na def ab liggéey bu mucc ayib ñu daal di pëtaxlu dem ca yoor yoor fekk fa nataalu ko Madiambal Diagne Madiambal Diagne mi ñëw ci fiscale boobee Madiambal Diagne daa di ne nag lu mu ci mën a doon rek jàpp leen ni bor bile mu ne suñ kaa fay ñu ne ko déet waay Madiambal Diagne daan ne ana fan la ñu koy fayee xanaa lii mooy tëj leen seen maison de presse dàq seen i ñu daal di dem mu daan ne jamono ji fi Macky Sall di nekkoon li ni mel daloon na ma ñu daal di tëj sama ay compte waaye dama kaa réglé woon ak ka nga xamante ni moom moo nekk directeur bu port jamono jile di Waly Diouf Bodian ginnaaw bi nga xamante ne nag nee na mbir yi tax ñuy tëj ab kontam du lenn lu dul lenn ci ay inspecteurs ya nekk ci impôt et domaine fare ci pastef sa bu génneewee ab article boo xamante ne neexut waa pastef ñu daal di koy yónnee lii di ay redressement jamono jile nag nee na li mu gis rek mooy daal di tëj ay entreprise am te xam na ne état du Sénégal loolee la daal di bëgg lenn ci ay patron de presse nag jamono ji ñoom nee nañ noppi nañ ngir dem waxtaani ji ak le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye beneen xatu jour bés bi le jour daal dinay ñëw ak ñun ci fisc bi nga xamante ni jamono ji entreprise de presse yëpp ku ci nekk dugal nañ ca seenub loxo daal di koy lëj mbët lëj mbët googee nag jàppal ne presse bi dañ leen a xamle ne ñoom du ñu ay faykatu bor ñeel li nga xamante ni moom moo di wàllum impôt Mamadou Ibra Kane daal di ne nag jamono ji jëwriñ gi yor wàllum finance war naa yëkkati loxoom ci lenn ci ay compte groupe de presse yoo xamante ni daal dina ciy tegub loxoom bu ko defee rek ñu jéem a xool ana naka la ñuy waxtaanee jamono ji ngir gisante ji ak chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye waxtaan ak moom xool bor yooyee ana naka lañ koy fayee waaye tamit naka lañu koy wàññee ba tey ci bis bi la jour wàllum escroquerie foncier présumé jàpp leen ni beau-frère Macky Sall googee di Adama Faye mu nga ca garde à vue gannaaw section de recherche ñoo ko jël si teg ko ca ndungu siin témoin daa di ne garde à vue depuis hier à la gendarmerie Adama Faye daa di ne nag ab chute boo xamante première dame Marème Faye Sall moom mile ab frère am la li ñu koy toppee jamono jile nag daal dinay bokk wàllum escroquerie foncier ñu ne déet waay ñu daan ne wàllum suuf la ñu koy toppee lu tolloog 300 millions de francs CFA musiba mbaaba kumba daal dinay dal ci kawam waxtu boobee nga xamante ni ab plainte bu ñu génnee waat ca tiroir ya la daal di ko koy toppee le témoin daal dinay samp aw laaj daal dina tabaski gile nga xamante ne ay fan rek ñoo ci daal di jënd ndaxte xarum trois cent mille moo xamante ne ab mbote la jàpp quatre cent ba cinq cent mille jëm ay un million góorgóorlu yi ñu ngay xaar xarum Bassirou Diomaye Diakhar Faye yëmutik askanu ko Sénégal ba tey ci le témoin jàpp leen ni défense ñeel marine nationale woowee nag ñu nga koy continuer ginnaaw bi nga xamante ne nege ni démb daal dina ñuy dalloo ab benn patrouilleur boo xamante ne nag daal dinay nekk ca haute mer ba ñu koy woowee la Kayoor mu commencé ab liggéey gu mucc ayib Sud dañuy daw daal di wëyali mu daal di ñëw ak ñun ci transformation systématique bu Sénégal renouveau ñeel repositionnement stratégique bi nga xamante ni nag nee nañ école bi warees na jël Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal nay joxe ab caabi projet boobee ana naka la ñu koy daal di tijjee bëccëg bi nga xamante ni moom la ñu jagleel wàllum alam bi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jël ab garab foofee nga xamante ni moom moo di capale de la république jëmbat di sàkku ci askanuk Sénégal kenn ku dina doon luy dooleel alam bi vox populi la ñuy daw daal di koy wëyali ñu daal di fay fekk nag ki nga xamante ne ni moom moo di Mbaye Ndiaye nekk directeur général bu douane daal di ne nag ci njàppalalu autorités yi jàppaleen ni nag dinañ mën a sécuriser davantage li nga xamante ne moom moo di suñu ay frontières frontières yi nga xamante ne bis bu yàlla sàkk réewum Sénégal ñu ngay jooy ne dafa mel ni tame yuréet jamono ji li nga xamante ne moom moo di drogue bi di fi dugg dugg gu am doole waaye douane daal di taxaw jatu ba mel ne aw soccat daal nag lii di drogue dootuñu ko bàyyeeti muy dugg fii ci diwaanuk Sénégal Vox Populi daal dinay ñëw ak ñun ci révision bi nga xamante ne moom moo ñeel système éducatif bi Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal ne nag wàllum njàng ak njàngale mi jamono jile système éducatif bi daal dinay doon loo xamante ne lu màgget la nuroowul ak suñu ay réalité waral na ba bépp programme boo xamante ni jamono jii ñu ngi koy jàngale ci école ba moom nee na nañu jéem a xool xalaat ana naka la ñu koy soppee li nga xamante ni nag moom moo di suñu aada ak suñu cosaan ñu daal ko ciy dugal waxtaanee comme di wàllum économie waxtaanee li nga xamante ni nag moom moo di langue anglais ana naka la ñu koy commencé jàngalee gone ya ca primaire ba bu ko defee rek ñu daal di am ab changement changement boobee nag mu daal di koy teg ci dal Ousmane Sonko moom euh, mi nga xamante ne moom moo di ilimaanu jëwriñi daal ne ko amal ci ab réflexion boo xamante ni dinañ mën a financer googu la jàng ngir mën a am système éducatif bu mucc ay ayib mbeneenu xatu xëtu yéenekaay di enquete enquête quotidien daal dinay tegal 16 kii di Amadou Ba mu toog tegle ay tànkam daal di nekk nag ci guddi gu bër setagul ñu daal ne recomposition politique Amadou Ba moomee nga xamante ni jamono joojee nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ay jege ñaaleem daal di nañuy addu ci journal enquête boobee li ñu bëgg saa tembe rek mooy ñu daal di bàyyi gépp guerre de positionnement boo xamante ni am na ca coalition Benno Bokk Yaakaar la mu àndal la ñu ko bañoon a taxawu ci li nga xamante ni moom moo di élection présidentielle yi moom Amadou Ba moomee mu daal di dem ak cëggal guyam kenn ci ay alliéem di ki nga xamante ne moom moo di Cheikh Oumar Sy daal di nay wax daal ne jamono jile nag tourné nañu doo ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Benno Bokk Yaakaar ab nouvelle aventure la ñu fas yéenee wëyali ñu wëyali ci beneen ko journal muy Source A Source A daal di nay ñëw ak ñun ci décret ñeel répartition des services de l'État ñu daal ne ab penalty am na ci de déet waaye ñu ne penalty bu mag ndaxte société d'exploitation des marchés bi wàllum gros porteur dañu ba ñu ko dugalee nag ci wàllum commerce ak industrie ñu daal di ci source a daal di fay fekk départuk Macky Sall gi nga xamante ne sàkku nañ ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko sàkku nag di Moustapha Diakité daat ne na génn ba set ci parti bi nga xamante ne moom moo di APR manquement yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci élection présidentielle yi ak ñàkk bañ a jàppale Amadou Ba yi nga xamante ne nag député Boubacar Biagi daal dina koy yëkkati nee na élection présidentielle yi nga xamante ne daal dinañ koy génn lu musta am moo ca am ndaxte ay réunion ñeel ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo di comité d'engagement yi nekk ci département yi du benn réunion boo xamante ni am na ci responsable ya nañ ca waroon a impliqué impliqué woo jàppale bu baax a baax ki nga xamante ne moom moo di Amadou Ba kenn ku ci nekk dangaa daal di panku say loxo waaye man député Boubacar Biagui ma ak Moustapha Diakité mi sàkku ki nga xamante ne moom moo di Macky Sall ngir mu daal di génn ci alliance pour la république di APR googee les échos yéenekaay daal dinay ñëw ak ñun ci match Sénégal bi nga xamante ni fas yéene naa am nege ni tey ci ngoon ci bu 19h jotee mu daan ne duel de haute intensité ne ko déet mu daan ne gayndey nañaa jongante fii ci diwaanu ko Sénégal ci bu 19h jotee Aliou Cissé mi nga xamante ne nag jafe na ngir mu daal di remplacer Sadio Mané yëkkati na ay kàddoom nee na du lu yomb ngir Sadio Mané ab ab remplaçant ci équipe nationale bu Sénégal waaye samay ndaw wóolu naa leen ki nga xamante ne moom moo di entraîneur bu République démocratique bu Congo moom nag daal di nay xam ne ni équipe bam boobee duñu ca puuca te duñu ca paaca ndaxte ñoom nag yombul nga jouer ko assemblée bi nga xamante ne moom nee na ñett ci li nga xamante ne nag moom moo di fin de non recevoir ki nga xamante ne nii moom moo di Ousmane Sonko kii di amadu Mame Diop ak ñamu àndal jamono ji lay séparation des pouvoirs ak refus bi nga xamante ne envoyé nañ ko lenn ci ay représentant ca lañ daal di mooy Guy Marius Sagna daal di takku ba dëgër daal état du Sénégal nag su fekkente ni dafa bëgg a nërmeelu ñi ko bëgg a saboté du ñenn ñu dul ñafaree ca assemblée nationale réunir boobaak léegi def na ay fan la ñu fay waxtaanee daal dinay bokk ca commission d'ad-hoc ba nga xamante ne nag moom ilimaani jëwriñi Ousmane Sonko daal dina koy taxawal libération la ñu koy daal di jeexalee mu daal ne li waral coow li lépp ñëw leen ibbi seen i nopp ma daal di leen koy nettali délinquance foncière gi nga xamante ne nag moom la ñu toppee Pape Doro Gueye jamono jile Adama fay daal di nekk goro national ci njiitu réew ma woon maki Sall nekk frère ci première dame Marème Faye Sall millions de francs CFA la ay terrain yoo xamante ne moom mi jëloon na ko daal di koy jaay ginnaaw bi nga xamante ne nag nege ni démb waa section de recherche daal di nañuy dem daal di koy jëli ji déglu ko ba noppi dañu ko placer ci ab garde à vue ndaxte moom ay terrain la jëloon daal di koy jaay ginnaaw jaay gam ko jaay nag du benn këyit goo xamante ne jox na ko ñamu jaay googule suuf dossier ba dañu kaa bloqué woon ca tiroir ya waaye jamono jile dossier yooyu yëpp génnee nañu ko fay li nga xamante ne moom moo di bor waaye nag la ca des jamono jile ñu koy toppee lépp lu jëm ci wàllum escroquerie foncière moo waral ñu daal di koy teg ca ndungu siin ci libération mbir mu doy waar daal dina fay am benn directeur internat bi yor maison de la sagesse nekk foofee ci diwaanuk Baobab moom lañu ñu jàpp yóbbu ca ndungu siin li ñu koy toppee du dara lu dul ab viol ci gone goo xamante mineur la di ko toppee wàllum pédophilie incitation à la ci kaw élève woo xamante ne nag fukki at ak juróom-ñaar rek la daal di am élève boobee daal di ne juróomi yoon daal di na koy àgg ci sama kaw beneen bi ab banaana la daal di jël dugal ko ci sama kanam gi ñu ne ko maara day taali soxna Biria mboolem yéenekaay yi nege ni tey ci suba lii la ñu xëy fësal ci seen à la une. macha allah wa est-ce que du risol bi nga lekk démb gënul def effet gën na kii non c'est gën na. baal naa la baal